sëñ ñoo ngi lay ziar. jërëjëf yàlla yàlla baax. tey ñu ci màggalu góor yàlla Seydina Djily Cheikh góor yàlla gu mag a mag a ji bokk na ci bis yi nga xam ne sunu borom tabaaraka wa taala dafay yebal malaaka yi ñu jege ci kaw suuf ndax moo wax ne ci alquran wa man yuasim hurmatullahi fa huwa xayrun lahu loolu mooy bisu Cheikh Abdou Khadre ak leeri Serigne Touba yëpp ak wàllu yàlla yi bis la boo xam ne nag bu ñu ko dee màggal dañ koy màggal ci ko doomam ju baax ji Serigne Cheikh moom Cheikh Abdoul Khadir ak njaboot Serigne Abdoul Khadir yëpp mooy jàng alquran xasida bernde saafante ak sa moromi jullit yi waaye bu nu fàtte ne ki ñuy màggalal moom la ñuy wooyee ilimaan yi yi moo jiite ci kaw suuf di jiite ëllëg donte ëllëg amul julli waaye am na lu ñu fa mën a jiite kon képp ku fi yàlla dogal nga ñëw fi wala nga am cofeel ci moom. dafay baax boo ñëwee jeexantal yi mu doon dund ci islaam di ko dund ci sariyan di ko dund ci yoonu sëriñ Touba yi nga bañ koo fàtte waaye ñëw ci bis bu toll ne bisu Cheikh Abdou Khadir waxtu julli jot yëgaloo ko sa yaram mbaa nga fi def leneen loo xam ne bokkut ci lislaam santaane loolu bokkut ci li nga xam ne waras na koo royee ci jëmm ju tedd jooju. kon ñun ñi nga xam te ni duñu dara fi moom duñu dara ci kanamam bu nu yàlla baaxee nu fekk bis bu mel nii dafay jaadu bu nu ñëwee. ñu jële fi pas-pas jële fi yokkute jële fi ngëm goo xam ne bu nu dellu see dana xam ne kat lii ci bisu wàllu yàlla wi ñu demoon ca la ñu ko jëlee. digganteem ak sa waajur El Hadj Baara. waaw Cheikh Amadou Lamine moo nekkoon garde corps Cheikh Abdou Khadir bañ na ko ba musul dugg ci jumaa ji te sëriñ Baara ñëwul bi yàlla dogalee it mu jiitu Serigne Baara àjjana it fi ko Serigne baar daan xaar rek dafa daan taxaw diir bu toll ne daan xaar Serigne Abdou Khadir donte xam na Serigne Abdou waaye baatin bi xam na ne mi ngi ñëw bi mu waree joxe farata yi nga xam ne yàlla moo ko santaane mu juróom ponk lislaam Cheikh Abdou Lahad dafa woo Cheikh Modou Lamine ba mu ñëw mu ne ko kii yaa ma ci yóbbul ma ko andil ma ko ma defal lépp loo bëgg yàlla dogal dimbala sëñ Mouhamadou Lamine ba mu yóbbu ko Màkka mu joxe ay farataam ba indiwaat ko teg ko ci loxoom Cheikh Abdou Lahad ci la sëñ Abdou waxee na ko defal naa lépp la bëgg ci àddina ak kon ñaar yooyu rek. Euh, jagle gu yàlla jagleel Cheikh Ahmadou Lamine la ak yeneen yi fi biir ndax seex Cheikh Ahmadou Lamine leen ma ci laam boppam ne ma Cheikh Abdou Khadir woo na ko bis mu ñëw mu woo ay mbokk yu sant Bousso ak ñeneen ñu toog mu ne leen dama bëgg yow Serigne Bara tax ma woo dama bëgg nga waxal ma ñii na leen lu dugg lislaam aw ma tey defar aw ma tey yàq Serigne bi nee ba ma ko waxee ñooñu ba noppi ma ne ko ah, bëggoon naa xam lu tax nga sant ma lool de mu ne dama cee doy moo tax ma wax loo ko kon amoon nañu alaaka boo xam ne relation boo xam ne euh, moo tax muy waajuram di sëriñam di léppam waaye sëriñ Tuubaa moo tax loolu nag yàlla jagal na ko Cheikh Amadou Lamine loolu moo moo waral tànk yi tey ñu sabab jëmm jii nga xam ne monsieur Ba sëriñ Bass moom Abdou Khadir it sëriñ Ba nettali ma ci làmmiñ boppam ne ma boo gisee li tax ma jël ko teg ko ci kanam muy waxal yoonu murit bëgguma nit ñi fàtte Cheikh Abdou Khadir ci saayir moo tax fu ñu weexee sëriñ Bass na sëriñ bas Abdou Khadir kenn mënu ko dindi loolu loolu sëriñ Bara ma ko wax. bëgguma nit ñi di fàtte Cheikh Abdou Khadir ci saayir ndax lim fi toog xalifa Serigne Touba yàggul moo tax ma jël Cheikh Modou Basir mi teg ku ko tudd tudd Cheikh Abdou Khadir ba léegi loolu mooy wéy waxaat ma ne ne ma Cheikh Modou Basir mii Serigne Touba ma ko jagleel ndax fépp moo war a fee defee dina fa kon na dañ koy ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu moom it tànd ak wér jërë geen jëf